pourtant monsieur le ministre euh, dans cette affaire dàq boobu ngay def wax euh, pour def le lien gis nañu ñu dàq koo euh, capitaine Touré ci li nga xam ne moom mooy liggéeyam ñu dàq ko jëlee ko fa nga xam ne la nekkoon mais yamul foofu bi mu jógee fofu. peut-être mérité woon une seconde chance pour certains muy dem IAM di fa di fa ñu dindi loolu encore teg la pression à l'institut privé euh, ba ñu jëlee ko foofu. est ce que c'est est nécessaire ñu yegg si woon est ce que c' est yegg si woon foofu quand même. Euh, koo xamante euh, citoyen sénégalais la ñu tere ko pour mu liggéey. mais citoyen sénégalais bala ngaa war a jàngale da nga war autorisation du directeur de l'enseignement supérieur. donc mënta jóg rek am diplôme wala am na leneen bu dem jàngale ji kan nga gis mu jàngale ci privé te autorisation donc comment se fait dire que mu jóg IAM e di ko jël ensuite IAM e dafay bénéficier ay subventions de l'État dafay élèves yi fay nekk dañ am ay bourse de l' état donc alalu l' la état la donc capitaine Touré dafa trahir l' du Sénégal. Comment, parce que parmi comment, des milliers de personnes. ay ñaar fi lu tolloog ay junne nit. war na mat sax xam naa ñaar fi junne nit ñoom ñoo demoon ne dañoo bëgg a nekk gendarme ñu dem def examen bu tar mu génn ci ñi ñeneen ñàkk mu bokk mu bokk si ñu gañe ñu formé ko jàngal ko yow lan mooy honneur. jangal ko yow responsabilité ban nga war a am pour garder les secrets ban nga war a am pour nga jël enquête au nom de l'État du Sénégal nga wañee ko enquête yooyu ñu ne kii dañ ko jiiñ ah, ni dafa ni dafa yàqtaan nga war a jël këyit yi di ko génne wala nga di ko ngay woonte ak kooku di waxante ak moom kooku c'est trahir la nation la nation ku ko war a ku ko trahir da nga war a subir donc cette nation là il faut que l'État du Sénégal reste fort la constitution monsieur le ministre garantit à tous citoyens le droit et la gendarmerie nationale a sorti même un communiqué pour dire que en aucun moment ils ne sont elle n'est ni mêlée de près ni de loin. elle n'est mêlée de euh, non non en fait pour pour la. Non, la gendarmerie n'est pas mêlée de loin cela veut dire que veut dire que est ce que je sais que la gendarmerie n'est pas mêlée est ce que lolo aussi waru une seconde chance nous Mhm. loi bi loi bi koy loi loi bi nga xam ne mooy garantir ki TFM di liggéey. d'accord mom mom dem euh, gendarmerie punir nañ ko def na li ko wara def enseignement supérieur domaine keneen soo so dee Sénégal dem Guinée mais so demee loi Guinée mo lay dal. Mhm. dafa am autorisation pour mën exercer ki nga xam tam moy IAM dafa war sauvegarder les valeurs nationales parce que. IAM ki ko ki ko moom. léegi mi ngi ville de Dakar lan ngay wax ci loolu. balaa may jox maa ngi ñëw li may mhm. baayam c'est une haute personnalité boo xam ne liggéey na ci biir Sénégal. Girassi nekk un mu fexe ba distingué ci Sénégalais yi comme nii Bougane distingué woo ci Sénégalais yi donc ñoom loolu ñu def ba foofu dañoo war a topp loolu loolu ba nekk ay royukaay yu Sénégal mais waruñu dem jël ñoo xam ne c'était ay contre royukaay lañ. ñoo xam ne dañoo def loo xam ne dafa contre nation bi lu bon la ba ñu jàpp leen punir leen ñu bëgg a jël loolu yëkkati ko ca kaw suñ ko defee mu su ko buggaan defee il sera dans l' erreur su ko grâce defee il sera dans l' erreur parce que ñoom ce sont des modèles modèle dafa war a jur modèle mais guy warta jur xetax donc ñoom ñaar dañu war a jur guy mais nii la nii l'autre warta guy warta guy jur xetax yéen ñii nag ngeen xam ne yéen ngi nekk di liggéey ci lu mel non mhm. ngeen gis ay jeunes yo xamné ils se sont sacrifiés ñu xol seen bay nañ doon liggéey démb ñu dem ba am li da ngeen wara a culturer da ngay wara def bu Sénégal am ño xamné dañuy nekk ñom point de mire ñoy nekk royuka royukaayu réew mi mais buñu yak mu mukk suñ liggéey. Mhm. té bu leen leen top bu leen leen fexé ba ngeen yàqal leen seen liggéey. parce que su fekké né da ngeen di jël di and ak ñi nga xam ne nekkuñu royukaay liggéey bi ñom ñu liggéey ko seen kilifa yi liggéey ko da ngeen koy yàq. donc Sénégal nag Sénégal di wala impartial voilà je vous rappelle que nous sommes là pour poser des questions. Mm-hmm. madame je suis là pour répondre. waaw boo boo nee yéen ngeen bañ a jël ñooñu royu. non je su ma nee yéen rek koo xam ne gis nga ci sa bopp. d'accord yow ci nga bokk ku ci gisul sa bopp jàppal sa njaam boo xam ne bokkoo ci. <laughs> waaw <laughs> loo wax ci kii loo noo wax noonu. dina ñëwaat ak yow dina si dellu si waat léegi incha <laughs> allah. Merci beaucoup Khady. Monsieur le ministre, euh, on avait parlé de plus en plus de la

la amone démb bañu ñu yàqu du amaat donc man noonu laa gisee retrouvaille donc su da ngay wax retrouvaille retrouvailles nag ci libéral, libéraux yi ñi nga xamné ñom la Abdoulaye wad jur. il est normal que moi moi je parle des libéraux bien entendu. voilà donc il est normal que nit yi suñu démé suñu xuloo ba à un moment donné aussi ñu tok ñu waxtanat mais su fekké né nak affaire yi sëy dañuy Ah, wala nit ñi xuloo libéraux yi tago ñu xëy len tay len leen ngeen àndaat ah kenn ku nekk euh, ñëw. bàyyi la nga xam ne moom la jàppoon bon loolu wax wolof la waaye loolu bala ñu ko wax day fekk ñu liggéey ci lii biir donc ànd moom baax na féewaloo baaxul waaye lépp lu ñuy def nañ ko def ci kaw yoon ba kenn ku nekk nga gis sa bopp. mais xam nga fan nii euh, dañu dégg ni euh, parti démocratique sénégalais mi ngi togg benn coalition bu mag a mag pour jàkkaarloog euh, la grande coalition du pouvoir est-ce que loolu finalement du faussé. les jeux bi nga xam ne di di yaakaaroon na ñun léegi ñu retrouvé wu parce que dafa mel ni Karim Wade mi ngi ci Qatar dafa mel loolu àndu ci. xam nga c'est légitime que euh, famille ñi des ci Karim Wade su fekkee ni ñoom mënuñu àndaat ak ñi nga xam ne ñoom lañ tàggool ñu formé coalition gis nga li doon yoon man waxoon naa Karim Wade depuis 2016 ma ne ko li doon yoon nañu fexe ba fortifié wu xeex dem assemblée nationale am fa majorité. ba yow lii ñu la teg yëpp ñu teggi ko waaye fekkee ne Karim nag fa mu nekk mu nga fa yëngatuwul ci dara dugalul loxoom ci dara lu mooy bëgg a bàyyi ñi nga xam ne ñoo fi nekk ñu lijjantil ko te xale yooyu amuñu expérience ndax mag ñi fi nekkoon ñëpp dem nañu amuñu aussi engagement politique boo xam ne loolu dañ ko mën defal Karim kon Karim la mu bëgg du ko mun a am am na loo xam ne su ko mag bëggee moo koy wutal boppam donc yaakaar naa ne moom mu formé coalition boppam loolu mooy yoon man dama doon Sénégal dañ war a am ay coalition wallu ñu ànd ak euh, Karim ñu ànd ak ak Abdoulaye ak Pérez ñu formé seen coalition bu mag ñi nga xam ne dañu ànd ak ñoom Sonko ñu formé seen coalition bu mag ñoom Bougane génne fii seen coalition su ko defee ñu am cinq coalition yoo xam ne yu mag la ñu mën a jàkkaarloo mais li dul yoon mooy sëmbaxaloo boo xam ne en ah, kenn ku nekk nga jógee fële euh, mu mel ni supp kànja ëllëg du amal valeur Sénégal yi parce que da ngaa mer rek loolu du yore réew réew de vision moo ko yore réew dafay am ay bunt ay bunt yoo xam ne ñu ubbeeku kenn ku ne nga jaar sa bunt bu njëkk ba doon am lee socialistes da doon am les communistes da am lee libéraux peut-être Sénégal loolu mënu fi am mais Sénégal xam nañu ne fii mu toll nii moo seen Ablaye Wade ñi nga xam ne moom lañ juróon moom la jur moo tax moom la moom moom moom la meññ ay ñoom groupe la ñu mag suñ mënee ànd moo gën mais suñu mënta ànd ñoo ña fa des nañu former sen coalition bop d'accord alors opposition bi euh jëm nañu essayer def bloc ci élection locale yi mu mujjul ànd euh, ba yeewi demal bopam ñeneen ngi demal bopam fan yi ñi ngi wax ni pour ñu imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale ngir ñu mëna am euh résultat ci combat yi ñuy xeex il faut ñu ñëpp ñu bolé est-ce que ñu wara and ci opposition bi rek ñom wara and wala il faut kenn ku nek def sacrifice ñom ñëpp ñu def bloc. non répondre naa ci question bo man sama sama xalaat man sama gis-gis moy ñëpp mënuñoo booloo ànd ñëpp opposition bi bokkuñu parce que ñi ay anti système lañu ñi ay système lañu parce que Sonko nee anti système la dégg nga sax bu naan président yi dañ leen war a fëdal tëf tëf ñoom euh, Léopold Sédar Senghor euh, Abdou Diouf euh, Ablaye Wade ak yooyu nee na moom bokkul ci système donc je crois que ñi bokk ci système mooy ñoom ñoom Karim Wade ñi bokk ci système ñoom Gakou ñi bokk ci système ak ñeneen ñi waruñu mënuñu parce que bokkuñu gis-gis bokkuñu ñuy doxalee ñii dañuy violence la ñu àndal dañuy xeex dañuy lakk dëkk bi dañuy rey ay nit parce que loolu ñëpp gis nañu quatorze personnes yu fi dee ak ak ñeneen bokk na ñoo xam ne ay yaaram lañu parce que Abdoulaye Wade dafa waxoon ne moom du yàgg ba mukk mu jaar ci ay ay ay niw euh, pour jot réew donc xam nga loolu c'est de l'humanisme xam nga loolu c'est pacifique xam nga loolu mooy jàmm wut jàmm ak salaam mais ñii dañ ne na leen jaral seen bakkan donc dafa am yoonu na leen jaral seen bakkan ak yoonu man du ma rey nit man jaraluma ko ak yoonu nit ñoo xam ne ñoo sedd comme ñoom gàkku ñooñu ñoom dëkkuraañ yi fi nekkoon ñu mel noonu nga xam ne ay ñoom Khalifa Sall nga xam ne ay yaaram lañu mais je crois que yaaram yi mënuñu ànd ak ñoo xam ne dañuy lakk dëkk dañuy dañuy ndax dëgg la dëgg mu waruñu mën a ànd donc ñooñu su ñu dañuy ànd tam nax nit ñi d'accord benn question laataa ma jox Khady muy ci élection locale yi génn ak législative yi nan nga fas yéene euh, doxalee. doxalee nu kan.